modèle bu Rwanda. mu ngoog euh, Mansour ñu wax ci imaam Thierno Tidiane Tall euh, dëkkoon ca euh, quartier Daaru Rahman bu Grand Yoff moom mile ci fàttali altine ba tey la réeroon ay mbokkam boobu ba tey ñu ko doon wër nag mujj nañu koo gis waaye néewam comme la ñu mujj gis kon ca zone de captage ca zone de captage ak itam fa nga xamante ne fa la dëkkoon daanaka tiis rek moom lañu ñu fa mën a nemmeeku ñoonu ci ak Fatulaay Mbay Thiaw captage bi la ñu daal di fekk imam bi. wéeru ci canal bi rek seen ko teg yaakaar ne saako bu ñu sànni la ñii di werante nit la saako la ak ëmb buñ fi sànni la waaw ñu ci ëpp nag jàpp ni daanaka nit la. ñi ko njëkk a gis jàpp ñu woon ne li nekk ci biir ndox bi ab nit la woon. am na benn xale bu jógee foofu ñëw bi mu seenee xam naa yére bi mu sol muy jàllaabi bi mu sol mbaa na am na kol goo nga xam si xañ na moom la daan teg ci baat bi ñëw na ba ci ndigg li noonu bi ñu ko génnee xale bi ñëwoon ni kii sama papa la mooy imaamu jàkka ji ñun ñëpp daal metti na tiis nan lool lool lool nekkoon lu metti surtout que ba doomam daal di waxee ne kii papam la ci quartier bu imaam Thierno Tidiane Tall daal di dëkk voisin yi nekk ci choc ba léegi xalaat ko réer na lundi après toog tàkkusaan ndax kenn xaarul nouvelle bu melteen nii kenn xam ko waaw nekkoon imam di dox ci diine di wax ci diine jàkk ja kër daara ci jumaa ji la doon jiite ba keroog rek ñu koy gëj a gis famille bi nag jamono ji di xaar autopsie ngir xool lan moo faat imam Thierno Tidiane Tall jiitu imaam yeeg ulema wu Sénégal yi euh, mu mu ginnaaw bi mu jëlee lépp delloo ko suñu borom moom euh, mu ngi xam le ni génn àdduna bu tiis la waaye bu sañoon yoon dina def liggéeyam bu ko defee ñu xam ani ah, lan euh, moo tax mu ñàkk bakkanam ak itam lan moo ko yóbbu foofu ñu ko gis ñoonu ci ak El Hadji di ko ñaanal yàlla yërmande wàcc ci moom ñàkk nañu ku baax ñàkk nañu kenn ci ñun ci dogalu yàlla suñu borom ndax xamaguñu li ci biir yëpp. ñu ñëwoon fii ci kër gi nag ndax moom xam nañ ko moom ci boppam ndax suñu membre la. mi yàlla dogalee lii tamit barke démb ba tey ñu ngi ciy seet ñu ngi ciy ñaanlu ñu ngi ci wax ñu ngi ciy dox ba sànq bi ñu jotee xibaar bi ñu ñëw fii ci kër gi seet si famille am bokk ak ñoom tiis bi li ci gannaaw yàlla na ko yàlla leeral ba ñu xam rek mu demee ump nañu jaaxal nañu bett nañu. ndax xaañu ko woon ci moom ndax moo jiite euh, takkusaan bi tàggoo dem di seeti beneen frère bi nekk Grand Yoff ki ñu doon waxal léegi ca marché ba la ñu mujj am ay xibaar ci moom. donc Mansour mu indiwaat euh, wàllu insécurité. bu doy waar boo xam moom la Sénégal di dund actuellement responsable du réer kilifa du réer. Mhm. fu mu nekk bàyyiwuf sagoom surtout kilifa diine gu mel ni imam mu nekk itam loo xam ni wax dëgg yàlla. kenn amatul sécurité ba ci sa dëkkuwaay parce que foofu la dëkk ci quartier ba la dëkk. nekk fa imam bu nit faatoo mu war a bokk ci ñu lay taxaw bu nit dee ngénte mu war a bokk ci ñu lay taxaw. di maye ay sëy war a taxawee islaahu zaata bayn maanaam bu ay nit xuloo moom moo leen war a jubalewaat. waaw ki nga xam ne moo am mission yàlla bu rëy boobu tegu ci aw ndodam moom sax nekk kon ci société bi nekk amu fa sécurité. Mhm. qui a intérêt la question bi nekk. lu wér te wóor mooy ah ci ay dëkkandoo ñu ko seedee parce que premier jour bi mu ñëwul la ay nit yu bëree bëree bëri di woote partout pour ñu def communication bi mais am na sax ci ñu doon am kersa di ko annoncé ci benn annonce bi man ci laa bokk. Mhm. parce que kilifa la nekk responsable ñu xam ko ba da ngay sax am kersa ci annoncé ko sax dafa réer. Mhm. parce que ndax tiitaange gi nga doon am ci boo xamee nit kii euh, nu mu mën a disparaître noonu ci quartier ci façon bu gaawee noonu. da nga ci am tiitaange boo xamee réalité tey kaaraange ni ci Sénégal yu dundee mais xadi wax dëgg yàlla ñu ngi am yaakaar ci suñu justice ñu ngi am yaakaar ci suñu police ñu leeral faatuk imam bii parce que tey lii menace la ci képp kuy dox mhm. imam bu toll nii amee solo nii ci diine ak ci société bi mu faatoo faatun ñaaw wi woo xam dañu ko rey mhm. parce que nag déewul ci mbedd ci saaku lañu def mhm. kon dañu ko rey wax dëgg yàlla nag war naa tiital ku nekk ngook euh, lépp njaboot gi ñu ngi xaar autopsie waaye itam enquête c'est vrai xam nga lii lan lay wane mooy euh, degré de violence bi nga xam ne ñun Sénégal fan la ñu toll parce que lan moo ko fi indi waxum politiciens yi ak politique yi ñoo fi ni indi li nga xam ne ne wax cu ñaaw ak maanaam génnee yenn wax yoo xam ne ne di tamalante dëmm loolu yëpp ci benn société boo xam ne ne c'est des gens yoo xam ne ne dañoo bëgg a jiite boo buggee jiite am réew da ngay ñëwaale ak li nga xam ne ne lu ñuy wax la sagesse la bienséance et puis lu ñuy wax ne ka yaru ak yooyu yëpp donc ce qui veulent nous diriger aujourd'hui su dee ñoo instillé les germes de la violence su lii amee tey jii c'est parce que tout simplement dafa am ñoo xam ne ne ñoo ko commencé ñoo ko woote commencé di ko doxal parce que Sénégal mu toon toll ci euh, niveau boo xam ne ne violence bi toll na fi ba ñuy jàpp imam yóbbu ko di ko rey daggate ko di ko dugal ci ab ñi hmm. loolu yëpp dafa yëg dafa jéggi dayoo donc il faudrait que le président de la république mu jël ay mesures yoo xam ne coercitives des mesures yoo xam ne ne képp kuñ ci jàpp ci yenn yi ngay faat bakkan ak yenn yi il faut ñu teg leen ay naqar wala soit ñu teg leen loo xam ne lu métti métti ay ati ati at parce que il faut que le peuple mun a nekk ci benn maanaam ci benn teranga boo xam ne ne du ñu nekk ci fitna tout le temps mais tout le temps fay day am fitna ay zone de captage mais soo fay demee la plupart du temps yi def nañ fa ay descente dinañ fa fekk ay nit yoo xam ne ne ay ay nit yu ñaawteef lañu dañuy xaar nit bu romb rek ñu am jël sa alal jël sa portable ak lenn lenn suñ la bàyyee nga dem ak sa bakkan nga sant yàlla. Mhm. donc il faudrait que le gouvernement mu mun a autosaisir fexe ba les forces de l'ordre ñu mun à chaque fois et chaque instant ñuy def li nga xam ne ni ay patrouille ne serait-ce pour mun a euh, conscientiser les les esprits. donc euh, Léopold ñu wax ci leneen Mouriti euh, ñu ngi màggal wayjur bu jigéen bu Cheikh Ahmadou Bousso euh, ca Poroxaan nga xamante ne fala xabaruwam um, nekk nekk ci département bu Kaolack tey ci alxames gi mbooloo bu takkoo takk ñoom ñoo fa nekk fu ne nag la ñu jógee euh, ci àdduna bi audition bu euh, ren bi ñu daal di ci waxtaanee ci wàllu kersa ak jikko yi nga xamante ne moom la nit yi war a am ginnaaw bu ñu nemmeekoo yenn jëf yu ñaaw yu ndaw yi di def rawatina ci réseaux sociaux yi ñu ond ci ak suñu ko jigéen ñi bëri ñëpp daal daal di dikk fii ci gox bu sell bi lee nga xamante ne wayjur bu jigéen bu Cheikh du Bamba moo tax mu siiw xol yëpp daal di ubbeeku ngir dal gàttandu leer yi nga xamante ne mu ngi ci bërëb bi. ñëw siyaar si maam Jaara rek ndax moom bu aayee Baye Fall yëpp ay raakaaju fa ma waxee nii Baye Fall yëpp ay raakaaju mooy sunu maam mooy sunu lépp yoon bi xat trop waaye gars dañ koy jaayante ñëw bu waaw ñaan yàlla yoon bi sedd buy ni glace barki maam jaaro Bousso ndax maam nii moom maam jaaro rek lañ ko jagle kii mooy kër Cheikh Bousso imam Porokhane waaw fii moom daara la wax dëgg yàlla dañ fi jàngale alxuraan dañ fi jàng xasida waaw bari nañu fi génne ñu bëri ñoo lu jëm nag ci ndaw ñi ñoom dañoo gis ne jamono nag soppeeku na nouvelle technologie yi ak yi daanaka yàq na ay jikko bare bare ba tax na nag ñoom ñu ngi woo ñëpp rawatina nag ndaw ñi ñu daal di jubal wéer ko ci diine lislaam ndaw yi dinañ war a mën a góorgóorluwaat bu baax ndax jamono yi léegi ji ndaw yi li ma gis moom doy na waar lool buñ jaloo ci daara ja ñu yar leen nañ leen war a yare yaakaar naa dinañ am beneen taxawaay bi wuñ taxaw wuñ bokk tëg léegi parce que xale yi ku leen gis kat yar nañ leen kat ku ñuy wax ak kilifa dañuy toog sa wér wax xam nga loolu ak yar la en am na loolu la xam suñ la yaree war ngaa mën a jomba génn nga def yenn yi ku yor sa doom ku ne bu ma a daal alxuraan nga def yar ba mu daara ja daara ja yar ko alxuraan mu ñibbi si da nga kontaan loolu la ñuy moom benn araf bu ñëwee war nga mën a kontaan baax baax ci màggalu poroxaan bi nag taalibe yi bég nañ bu baax a baax ñaan nañu seen soxla waaye it ñaanal réew mi ngir mu am dal ak yokkute directeur général bu agence nationale de la sécurité routière moom itam mu nga woon ca Porokhane Boubacar Diop di fàttali euh, chauffeur yi euh, mbëbët bi Sénégal am ci wàññi accident bu baax a baax bu ñu mënee sax wàññi xaaj bi euh, ñu déglu ko àdduna ci micro Aline donc ay apport dafa engagé wu te ay engagement Nations Unies jël engagement si CEDEAO mu am aussi ay directives donc yoo xam ni yéema dañ ko joxe pour que ñu sukkandiku ñun ñëpp ñu ànd moom la ñuy wax si français si en tout cas nasaraan donc schéma harmonisé gestion de la sécurité routière ñu ànd si état Sénégal gouvernement Sénégal jël engagement ni fii léegi 2030 nga xam ni mooy horizon objectif développement durable yi dinañ fexe ba lu nga xam ni dañ nga am si néew xam ni jóge na si accident dinañ ko wàññi si genn màggalu poroxaan bi moo suux euh, mërs doon kon li ñu doon gën a waxtaanee bu ko defee ndaw yi delloo si seen xel euh, rawatina ci scandale yi ñuy nemmeeku ci réseau yi. moi je pense bu ñu jëloon rek am na benn document bu ma doon lire ñu bind ko en arabe. ñu si jàngale jikkoy euh, jaareetu laa soxna Jaara Buso. dana sëkk ci ñu xamal nit ku nekk nan nga war a mel. du ma wax dong jigéen nag. ci màggal Porokhane ren bi de ak jigéen ñëpp ñoo ko bokk ni mu nekk sas ci jigéen loolu la nekk sas ci góor souvent may dégg ñuy wax internet réseaux sociaux euh, yàq na àdduna bi réseaux sociaux li mu defar mu ëpp li mu yàq kenn ku nekk ni nga mel noonu ngay jënde connexion kenn ku nekk ni nga toll noonu ngay dugge ci net bi kenn ku nekk li nga soxla loolu ngay seet net bi internet outil la outil bu jox nit ñi jàppandalu gën a jégeyantoo gën a xamante jox la opportunité ci wàllu liggéey jox la opportunité ci wàllu connaissance jox la ouverture tey loo xam da nga da nga da nga doon dox dëkk ak dëkk pour sàkku ji xam boobu tey internet mun na la permettre mais agresseurs yi agressé ñi def naka su dul noonu ñi xëy di yàq ay der ndaw yi nanga wutal liggéey nekk ay al toppee pour ay nit mhm. faw ñu accepter toog benn place pour ay miet pour di saaga ay nit mhm. xeetu comportement yooyu xam nga kooku tey bu dëkk bi dee takk buy am ay manifestation xëy na sax du dem manifester ji xëy na sax du génn amul oto bu muy lakkale amul kër gu muy lakkale parce que xamagul te dafa irresponsable xëy na noonu la ñu ko yare xëy na àdduna ak pression sociale jiital na ko li koy xaar bëri ba tax war na nangu lépp luñ ko jox gis nga xat yi mhm. réseaux sociaux yi muy ñàng ñàng ñàng ñàng les bailleurs ñoo gën a ñàng ñi utiliser réseau sociaux yi xam nga ñoom ñooy le bailleurs les politiques yi nga xam ni dañuy recruter ay téeméeri téeméeri xale teg leen quelque part di leen fay ay miettes pour ñuy saaga ay nit. guddi ak bëccëg. am ñi nekk à l'étranger foog ñoom mucc nañu ci lépp kenn du leen tudd parce que fi ñu nekk loi yi fa nekk kenn du fa xeex kenn du fa def kenn dara ñu nekk foofu jël def seen ay live di saaga suñu kilifa yi diine yi di saaga yaayu nit yi foofu la mbonte nekk mais ñooñu amuñu valeur. Mhm. parce que euh, li ñuy wax rek. min yi zuhril xafaa c'est-à-dire li am valeur jigéen a la jigéen boo xamante ni bi du sax am valeur li bon li la sori ngay yóotu yi pour mu am valeur li may seetaane benn saagakat bu nekk bu nekk euh, fu kenn xamul mais du ma ko seetaane nit ki wax wàllu diine ma seetaane ko xadi mi joxe conseil ma seetaane ko keneen ki wax wax ju baax mais loolu question de comportement la bu fekkee man dama accepté man toog ci kanam ordinateur uniquement pour saaga xadi mm. parce que responsable laa ci lépp lu bon ci sama réew mais li fàttali ndaw ñi mooy ñooñu non seulement bailleurs yi nekk seen ginnaaw ñoo gën a immature uh-huh. te ñoo gën a waaye di mais ñoom ci seen bopp itam dara warul leen te amuñu lu yàqule bu Sénégal tàkkee moo tax tey thème bi ñu jël ci màggalu Porokhane bi dafa am solo ba nga xamante ni bi buñ ci génnee yal nañu yàlla boo dégg ak topp parce que agression yi ci net bi wallaay bi ci diine ji am na ñuy agressé dangay da ngay gis ay soi-disant imam ay oustaz yuy saaga gëm-gëmu nit ñi uh-huh. te gis nga équilibre doomu aadama dafa aju ci yow li nga gëm na la doy li keneen gëm bul ko attaqué bàyyi ko keneen mais léegi saaga gëm ko mu kii saaga gëm ko mu kii ci wàllu politique saaga gëm ko mu kii ci wàllu diine booy même boo amee pitax sax bu keneen wanee beneen pitax nga ko sa pitax bi tànk bi day soox mhm. c'est-à-dire que ñu dugal ci nit ñi xolu Sénégal yi benn mbonte goo xamante ni bi laaj na psychologue yi nag defaat ci liggéey bu am solo éducateur yi ci wàllu lislaam def ci liggéey bu am solo parce que jikko yi fi nekk ni vraiment xaw na sëngem malheureusement euh, léew ci ci tënk rek tey bu ñu doon euh, fàttali jaar-jaaru suñu yenn maam yu ci mel ni soxna maam jaaro bi sax xëy na jafe-jafe yooyu ñuy am ci wàllu mërs mën nañ ko saafara Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi fi Cheikh Tidiane mi ngi fi ñoo ñëpp jaar nañ fi amul lu ñu jàngalul amul lu ñu waxul ci loo xam ne ne ci lu baax ci nit ñuy war fa war fa mën a tënku mais dafa di loo xam ne ne c'est que suñu société bi léegi moo yàqu loolu la wax une dégradation sociétale loolu moo fi am actuellement nii parce que xale yi dañ leen di seetaan dootu ñu leen couvrir comme ni ñu leen war a couvrir ñi nga xam ne ne tamit euh, amuñu fu ñuy liggéey ba pare tumuranke dañuy xool fu ñuy mun a agresser pour am la ñuy dundee loolu yëpp dafay am donc c'est une forte dégradation sociétale mais surtout nag su dee ñi nga xam ne ne ñoo nekk ca kaw ñooñu nga xam ne ni ñooñ la ñu jiiñ ñooñu la ñu dënk li nga xam ne ne moo di suñu opportunité ak suñu dem ak suñu lekk ak suñu lépp mooy ñi nga xam ne les politiques yi nekk ci kaw mais su dee ñooñu nag ñoom ñooy joxe le plus mauvais exemple ñii ci suuf nag ñoom lan la ñuy def donc xam nga bu njëkk ba nit ñi da ngay dem ak da ngay dem jàngi alxuraan mais catholique yi dem jàngi tamit li nga xam ne ne moo di catéchisme mais foofu dañ la fay inculquer ay valeurs valeur yooyu nag léegi dañoo dem ba nga xam ne ne sax parents yi léegi seetatuñ ndax seen doom ñi ngi dem jàngi alxuraan wala ñi la ñi ngi dem jàngi catéchisme donc li ci def daal mooy maanaam pëcc xool lay doon mais li ko indi su parce que gis nga soo gisee loo xam ne ne bopp bi dafa bopp bi bu demee ba nga xam ne ne dafa dafa nëb. donc yaram bi yëpp moo koy sentir. donc il faudrait que ñi nekk ci kaw ñu xoolaat seen bopp ñu redéfinir encore seen i activité ak la ñuy wax te xale yi di leen dégg. parce que ñoom dañoo war a mun a doon ay ñoo xam ne ne ay personnes yoo xam ne ne nit ñi dañ leen di naw mais malheureusement par leur discours. Mm-hmm. li ñuy gis ne lu ñaaw ñaawteef rek la. mu ngoog euh, Léopold ñu wax ci leneen Samsung génnee na Galaxy S23 série muy Galaxy S23 S23 plus ak S23 euh, ultra ay smartphone haut de la yu am ay euh, caméra yoo xamante ne dafa xarañ ba pare mucc ayib muy téléphone yu cherul ndax ñu ngi tàmbalee ci cinq cent mille te dina disponible ci ci marché bi fukki fan ak juróom benn bu weeru février ñoo di ci ak Safietou Badiaye Galaxy S23 ak Galaxy S23 plus la ñu lancé mu di ay smartphone yu mucc ayib yoo xamante ne ànd nañoo ko puissance boo xamante ne rek kenn mënu ko naatable te dina tax itam ba client yi nga xamante ne ñooy jëfandikoo yooyu les téléphones am lépp luñ ci bëgg rek ci nu mu gën a yombee. côté sécurité tamit fàttewuñu ko parce que NoxGuard moo ngi si téléphone yi côté assurance ak aussi euh, cassure d'écran fàttewuñu ko parce que am nañ Samsung Care Plus bi nga internet sur un an nga am une réparation gratuite su dee yow da am benn accident ak sa téléphone ba sa écran toj ak appareil photo boo xamante ne puissance bi jéggi na dayoo smartphone Galaxy S23 yi nag dafay rek yombal ñi nga xamante ne rek ñoo koy jëfandikoo liberté wu créer lépp li nga xamante ne rek bëgg nañ ko. maanaam euh, da ngeen am benn caméra boo xam ne caméra de deux cent mégapixels boobu tey daf leen di permettre ñu mun a jël ay photo si euh, de ñu woowee ci guddi photo yooyu jël foog naa ni mooy gën a leer sax su doon da nga ko jël yow directement ak beneen appareil photo wala da nga ko xool directement ak sa bët donc euh, xam ne ni suñu client yi tey loolu dafa important trop si ñoom loolu moo tax ñu indi téléphone bu mel noonu. ñu nekk ay bijoux yu Samsung yoo xamante ne fii ak ay fan yu néew dina disponible rek si marché bi ci ay njëkk yu jafe dara. a partir de cinq cent soixante mille francs pour le téléphone S23 qui sera cent cinquante six téléphone bi ça sera disponible incha à partir du février c'est-à-dire dans une semaine et kon nag clients yi mën nañ commencer rek bàyyi xel appareil haut de gamme Samsung yii di Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Plus ak Galaxy S23 yi nga xamante ne rek fii ay fan yu néew dinañ ko mën a am ci marché bi. ñu wax ci wàllu tàggat xam jëwriñ bi ñu dénk wàll bi Yankoba Diatara demoon na uh, xool yi tolluwaayu uh, chantier yenn stade yi ci mel ni stade bu Ngor uh, yof ak Léopold Sédar Senghor la mu ca bëgg mooy xool tolluwaayu liggéey bi bu ko defee ñu xam ndax dañu war baral suñu loxo wala na ñuy def ba nga xamante ne yooyu le stade dañ ko mën a jébbal askan wi rawatina ndaw yi ci nu mu gën a gaawee te bañ a romb dele ba nga xamante ni mooy app ba ñu joxe woon Sadio Abibou Bakar la ñu ci ondal gazon bu stade du Yoff dëgër këcc ci la def synthétique la waaye nag fii mën nañ fi jouer ñeent ba juróomi match ci bis bi te du am benn risque yàquti stade bi nag ñu nekk di ko defar jamono ji noppeegul lii état bi daal di ci frais ñaar fukki milliards ak ñeenti téeméeru million mu war a pare nag fii ak weer lu teg. stade bi presque pare na ndax pelouse bi synthétique la mais comme ni ngeen ko gisee pare na posé nañ ko c'est opérationnel donc ñaari tribune yi nga xam ni ñu ngi ko doon réaliser également pare na. te grille de protection bi comme ni ngeen ko gisee assainissement bi mais des na quelques finitions moo tax euh, bi ñu waxtaan ak entrepreneur bi mu ni ñu may ko délai 45 jours pour mu finaliser intégralement le projet moo tax moo doon demander au maire mais également à l'ASC et aux acteurs sportifs de Yoff de nous accorder un délai de 45 jours pour que nu puissions terminer le chantier donc dans le normes ba ñu pare Yoff stade Léopold Sédar Senghor la ñuy jëmali fii nag chinois yi ñu ngi fi guddi ak bëccëg di liggéey rek ngir réhabiliter stade bi seen mbëbët moo di def ab joyau multidisciplinaire te loolee ci li mu gën a gaawee. suñ ko paree dina bokk ci stade yi nga xam ni également ñooy gën a mag ndax soixante mille places la beneen bi mooy dina nekkaat aux normes ndax niñ koy tabaxee dañ koy def en conformité avec les normes FIFA mais également avec les normes de l'UEFA travaux yi donc ci trente trente deux mois la waroon dem en entrepreneur bi sax mooy euh, chef de projet bi jàpp na ni ci trente mois dinañu livrer projet bi mooy moo tax ñu ni dans vingt quatre mois incha allah rabbi suñ fi ñëwaatee en principe day war pour ñu dem def réception travaux yi te loolu defe naa ni nekk na lu am solo maintenant li ci des rek mooy le suivi donc xam nga ñoom suñu ñu wax ci CHAN 2023 bi final Sénégal Algérie samedi lay doon euh, ca stade Nelson Mandela bu Bouraki ca Algérie ginnaaw euh, jéego yu am solo yi nga xamante ne joueurs yi def nañ ko te ñu ci ëpp ci ñoom ñu ngi soog am euh, jogante boo xamante ne bu amee dayoo nii la ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca ministère du sport ab délégation dana déplacé wu ànd ak douzième gaynde bu ko defee ñu dem may leen doole fële ca Algérie jëwrin bi ñu dénk wàllu tàggat yaram itam bind na leen ab bataaxal ñu déglu ko lions locaux mën naa ni gàcce ngalaama macha allah ñu ngi leen di renouveler les félicitations du président de la république ndax wax na ma ni ma yàqu ba féliciter ma lions yi maa ngi leen di encourager donc premier match bi déjà contre la Côte d'Ivoire bi ñu ko gañ ci dama aussi waxoon aussi naa leen féliciter ma transmettre leen donc euh, les félicitations et les encouragements du chef de l'État donc du premier ministre Amadou Ba de l'ensemble des du gouvernement donc tey tamit yàlla def ñoom ñu dem ba finale donc après onze années d'absence muy loo xam ni performance bu mag la ba tax na ñu ngi liggéey ak euh, le gouvernement pour xool nañ leen leen di gën a jàppale wax naa ko président de la fédération Augustin Senghor donc ñu ngi travailler pour xool sax naan la ñuy renforcer donc euh, la communauté sénégalaise mooy le douzième gaynde ñu ne foofu di soutenir xale yi ndax ah, gis naa ni quand même le public algérien est un public très chaud donc ils très motivés derrière donc leur équi donc il donc pas xale yi nekk xale yi il faut pas ñu wét Euh, une équipe du deuxième gaynde qui est mais je pense qu'il faut quand même la renforcer donc loolu ñu ngi ciy liggéey ak premier ministre lu ñu ci mën pour vraiment jàppale xale yi les pousser à la victoire incha rabbi samedi prochain je pense que mérité nañu ñun ñëpp ñu féliciter encourager leen.